mercredi 26 août 2020 manam, fukki fukki fukki ayu bés ak ñetti fan muy juróom-ñaar fukki fan yo xamne ne di syndicat bi nga xamne mo bot ñi ñiy liggéey ci atk yi bankon na ci loxom bo xolé wala bo len xolé ni xex bi taré won duñ ciy gis pas-pasu liggéeyu katu ëtt atekaay yi pas-pas boobu xam ne day wane ne rek ñoom nanguñu li nga xam ne duñ ko am tubaab di ko wax ay droit ak yi ñu foqati ko seeni loxo te bu ñu xoolee droit ak yooyu dafa nekk loo xam ne duñ ko waxtaan ak gouvernement bi daal di ko def ay fas gouvernement bi bëgg ko fecc te li ci gën a doy waar fas yooyu ñu fasoon njiitu réew mi moom moo ko xaatimoon ah waaye nag li olof bi wax gannaaw ay jàmm ñuy rafetlu ah jubo bi nga xam ne wala ndaje bi nga xam ne am na ci diggante ministre la justice ak syndicat bi ñu dellu ñu wax dialogue xool di waxtaan ndaxte olof nee na réeroo amul ñàkk waxtaan a am comme ñàkk waxtaan bi am na te moo ñu may moo ñu mayoon keroog ñu ne nañu dagg xeex bi ci ñeenti fan ñeenti fan yooyu nag mat na muy quatre-vingt-seize heures surgis waxtaan ak ay mbokkam waxtaan ak ay nitam ñu ne nañu gën a yokk euh, maanaam bàyyi xeex bi xeex bi nga xam ne euh, duñ ko ajoon ci ñeenti fan léegi dañuy gën a yaatal aj bi maanaam daal suspendre nañu mot d'ordre de grève bi pour permettre garde des sceaux ministre de la justice jëwriñ bi nga xam ne moom moo yilif ñay liggéey ci ëttu attekaay yi mën a mottali engagement yi nga xam ne jëloon na ko ci wàllu fay travailleurs de la justice si prime yi nga xam ne amal nañ amal nañ leen ko ci weeru euh, septembre deux mille vingt waaye taxaw tamit tem ba nga xam ne comité bi nga xam ne moo war a saytu statut yi ak euh, fonds commun bi def liggéeyam ci ni mu gën a gaawee waaye comme li olof Njaay di wax lu amul seede baaxul moo tax bis na ko tey ñu jël seede askanu Sénégal gi yépp ci wareef yi nga xam ne ministre de la justice da ko teg boppam te ba mu koy ba mu koy tegoo dafa fekk ay doomu réew mi ñi nga xam ne lu ñu lañ wax wala luñ la jox wan nga ko mën a fayee ñoo ñu di ki ñuy wax bâtonnier de l'ordre des avocats muy maître Papa Leyti Ndiaye moo ko fekke woon ak maître du Ndoye mi nga xam ne nekkoon na fi ministre de la justice ak kilifa yi ñuy woowee Pape Birama Diallo ak Massar Sarr ñi nga xam ne ñoo fa doon représenté au conseil du dialogue social ak professeur Obosek, mi nga xam président de l'association des juristes africains ak ki nga xamné moy mooy sok xamné xam do kenn dootu ko présenté mii jiite centrale bu mag bii ñuy wax insas lolu la ñu ci déclaration bi wax len ko sank ci français ñeu faram-fàcce ko ci wolof di wax nak grève bi métti woon na metti go xamné am na ay doomu Sénégal ak waa askan bi ñoo xam ne loru nañ ci ñoo ñu ñëpp ñu ngi leen di massawu di leen jéggalu ndonte nag responsabilité bi yëpp mën nañ ko teg ci ndoddu état bi waaye comme ñaari loxo yi tàccu ñun nañ ci jël suñu wàll jéggalu leen ah di wax nag comme ministre bi jël na engagement yu mel noonu ñun lépp ñu koy bàyyi ci loxo askan bi ak ña nga xam ne fekk nañ ko woon nekk ay ay euh, témoin loolu mooy li nga xam ne moom lañ doon leeralal tey ci ak bi ñu fas yéene ak sunu xeex bi délai yi ñu joxe pour euh, le lépp ñu ministre bi matal ko c'est le mois de septembre bu septembre jeexee ñun syndicat bi nañu mën a euh, gam-gamle xool ndax ministre bi lim ñu waxoon mi ngi ci taxaw wala déet waaye nag am nañu yaakaar ne ak li ñu jot dund ak fi ñu jot a jaar do euh, responsabilité yi ak responsable li ci dugal seen loxo ak ministre bi ci boppam so am naa yaakaar ne dootuñu jéem a taxaw taxawi mbir yoo xam ne taxawaay boo xam ne day indi coow wala muy indi ay ndaxte tamit ay baaxul ay day sonal askan bi ñiy xeex dañuy sonn waaye tamit ñay taxaw di fekk xeex ba du ñuy sonn